nga fas ne waxtaanee sa premier point bi mu nekk les hommes politiques qui qui ont refusé d'être candidats Alioune oui euh, certains politiques donc euh, qui euh, euh, euh, apparemment en tout cas se targuent d'avoir donc ay envergure nationale mais élection bu jotee du ñu am fenn foo xam ne war nañ leen ko mën a nattee. pourtant euh, euh, moi en général je je je je les appelle euh, les hommes politiques yoo nga xam ne ils font de la politique pour les médias ou avec les médias mais euh, pas en tout cas pour le compte des populations parce que j'ai juste remarqué bi ma xoolee situation politique actuellement et puis surtout pendant la période de la de la pré-campagne électorale dama remarqué dama am ñoo xam ne dama leen di xool gis ñi gis ñu ñu ñu ñu ñu ñu yàgg di politique mais bu may seet ñoom fan la ñuy féete ak fan mooy seen gox ak fan lañ leen mën a reconnaître euh, euh, je me dis que ni mais euh, ñi finalement lan la ñuy def est-ce que ce sont juste des intellectuels qui donnent leurs avis dans ce pays wala est-ce que dañu dañu dañu dañu dañu comment dire dañoo dañu c'est parce que juste ay nomination ñoo tax ñu xam leen wala wala wala wala ils ne sont plus capables en réalité euh, de am seen base électorale donc loolu man mënu ma comprendre parce que mënu ma imaginer on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal qui fait kilomètres carrés environ à peu près autour de à millions de Sénégalais yow nga ne da ngay politique ngay joxe sa xalaat chaque jour euh, euh, apparemment nga am benn espèce u euh, envergure nationale parce que dañ on parle de vous partout mais surtout les médias qui parlent de vous mais les populations kenn xamul yow lan nga lan nga mët lan ngay tekki qu'est-ce que vous valez justement dans l'échiquier politique sénégalais donc ma xool loolu ma ne mais man ñii lan la ñuy def je pense à Malick Gakou j'en prends trois hein, comme ça Malick Gakou apparemment nee na moom Guédiawaye la jóge nee moom waa Géejawaay la malgré que on connaît les conditions yi nga xam ne moom la bàyyee maire yi Géejawaay bi euh, justement euh, donc euh, euh, à, à à comment dire à Aliou Sall. Mm-hmm. yàlla def mu mu génn. mu génn euh, comment dire mu génn AFP am problème ak Moustapha Niasse donc génn Benno Bokk Yaakaar dem créer son propre parti politique mais quand on crée un parti politique pour lan la c'est pour juste continuer à exister politiquement wala pour jéem a nekk président de la république te pour nekk président de la république il me semble que da nga war a def say gox-goxaat yi da nga fa war a am ay représentation yow ci sa bopp en première ligne fi nga xam ne foofu nga soqi ko da nga fa war a nekk da nga fa war a am une base politique existentielle ñu xam ne yow mi lii ngay tekki ci béréb sàngam. Mhm. et pourtant ce n'est pas du tout le cas. donc man li may xaw a gêner tuuti ci yenn homme politique yi eh bien je parle de Malick Gakou mais j'aurais Abdoul mm. Mbaye il fait de la politique il a commencé à faire de la politique parce que c'est le président Macky Sall qui lui a donné goût à la politique en euh, premier ministre donc ci premier gouvernement après il y a eu euh, euh, euh de la chamaille eh il est parti il a continué à faire sa politique mais politique pour lan la pour nekk di wax ci rajo yi ci télé bi wala c'est quoi le problème à un moment donné déggoon nañ ko à Kaolack pourquoi il n'a pas été mais dem pour jéem récupérer la mairie de Kaolack par exemple pour wane sénégalais yi ni moom existé na quelque part et que mi ngi continuer son maillage parce que ne peut pas être partout et nulle part donc am na dans toutes les contrées de ce pays dans toutes les communes d'arrondissement pourquoi du euh, euh, euh, politique pour pour pour y en a beaucoup ah y en a beaucoup pu donner d'autres personnes yoo xam ne ñu ngi ñu Mamadou par exemple que j'aime bien mais candidat où à part l'expérience ak xarañ ak xam-xam bi mu am ci économie politique booy politique da il faut nga exister parce que bu fekkee da nga am parti pour lan la finalement c'est pour être président de la République un jour avoir un parti qui va contrôler le pays et puis après nga doxal mais man je ne comprends pas ces hommes politiques là quand on euh, moi c'est pour ça que man dafa am benn côté boo xam ne wax dëgg yàlla man Ousmane Sonko daf ma ci neex euh, lu tax parce que xale bi dañ ko dàq. mu ne moom ñi ko dàq àndul ak ñoom d'accordul ak ñoom li ñu ko def lu dëgg du yoon moom léegi nag comme dàq nañ ko toroxal nañ ko moom xalaat na ni moom doomu Sénégal la te moom nee na man neneen laay gisee réew mi comme neneen laay gisee réew mi nag benn solution kese la am moom mooy ma créer suma parti politique fexe def sama kamtalaay kattan ba un jour ma récupérer le pays mi ngi koy def gën a sotti ak di sotti yàlla xam mais en tout cas mi ngi ci yoon boobu mais pourquoi les hommes politiques qui l'ont précédé et qui soi-disant ont plus d'expérience que lui et qui sont là dans ce pays qui ont intégré l'échiquier politique sénégalais ñoom ñëpp pourquoi ñoom ñëpp nekk fi avant lui ñu continuer di wax toujours di joxe seen avis ñoom avancé wuñu toujours politiquement Mmh. Est-ce que c'est parce que c'est des gros feignants qui attendent un jour des éventuelles coalitions pour se retrouver autour justement d'un gâteau qui aura euh, qui sera justement à, à, à partager wala lan moo tax lan lan moo tax ñuy politique ñoom c'est ça la véritable question ñoom lan moo tax ñu nekk ci échiquier politique dañu ñëw pour di wax di wax di wax ak les médias un jour ñu bokk ci ay coalition moi je ne comprends pas que quelqu'un comme Déthié Déthié Fall mm-hmm. Déthié Fall comme ça qui me comme ça à l'esprit y a plusieurs ah damay tourner nii rek mais ñoom bari nañ fi ñëpp xam nañ bari nañ fi il a Idrissa Seck pendant des années jóge na fa mm-hmm. conditions xam parce que sentiment de trahison bi mu subir par rapport ak moom en tout cas sentiment yi mu am créé na sa propre son propre parti politique def na benn ngandam conférence de presse taxaw na wax na wax na li mu bëgg wax na li mu yéene Sénégal mais élection yi njëkk ñëw am mu ne moom du bokk. mais Aliou Sow faut savoir tamit moom amul amul droit ne bokk ma. mais non déet non xam nga non non am droit bi xam nga tax mënuñu am droit bi parce que ñoom dañuy ne dañuy politique yow su ngay politique sa gox déjà je sais de quoi dañuy politique ñoom seen gox dañuy politique Sénégal mais il faut nga moi je l'attendais à être maire candidat à la mairie de Saint-Louis par exemple dem wane fa boppam wane xeex quoi pourquoi duñ ko def lan la dañuy jéem a njafee jéem a jaxasoo def benn affaire jéem a daje ci benn benn benn benn coalition pour que un jour bu élection amee ñu jéem nekk député après mu jeex ñu ko ne di wax mais en réalité ils ne servent pas à grand chose ils ne représentent pas grand chose dans ce pays là xaw ma ndax li may wax dëgg te li may wax mënul dañ parce que finalement après si ay calcul la ñuy nekk ils vont se retrouver après autour d'une coalition xam nga tey ko un exemple ah c'est pas la personne de Dieu exemple nee naa leen bari bu demee ba midi ma wax leen bari fii. mais nee euh, par exemple dans le cadre d'une coalition par exemple future ci ay élection législative il sera forcément dans une position pour être député alors que n'est pas véritablement lui dans sa propre personne il n'est pas véritablement représentatif parce que politique représentation la il faut que nga capable ci ba côté boobu moo taxoon ma def parallèle par rapport à Ousmane Sonko parce que man je trouve que man guerrier la man pour man li mu def ak yoon bi mu jaar nii jékki-jékki taf taf gars yi daax ko mu ne xaar ma nekk candidat élection yi ñëw mu am 33000 personnes yu ko votel sénégalais mu nekk am plus forest nekk député ni d'un seul comme ça mais ñaata nit ñoo nekk di homme politique ñoom Mali Gakou il serait pas capable ñoom def yenn façon yooyu liggéey boobu ñoom ci seen réew léegi finalement il a il s'est sauvé dafa daw da daw géejawaay alors que il aurait pu kam jël courage am à deux mains bi ko Moustapha Niasse dàqee waa benn boo ko yaa dàq ko mu jóge fa nekkatul ministre du commerce ñëw ñafee laay fam mais qu'est-ce qu'il te pourtant bu ñuy convoqué ñooñu la ñuy mais ñooñu tekkiwuñ dara pour man ñi ñu war a convoqué dëgg ñu bëgg ci ay ambition am ay objectif nekk nag liggéey dans le cadre de leur national ci Thioro il me semble que vous vouliez dire quelque chose. bon man dama lay fekk si rek damay dëggal li ngay wax gis nga local yi bari na loo xam ne dina ko feeñal ci politiciens yi waaye tam ci population bi nga xam ne ni tey jii ñoom. la ñuy mhm. dagaan seeni ay baat. Mhm. Euh, ci ci euh, man sama jàngat bu bu soriwul. ci mhm. ci li ñu wax sama xalaat rek laay wax. bu fekkee cadre ki nga xam ne moom moo di maali gàkku man daan naa ko dégg ci ay wax ay wax ay jataay ak jataay maali gàkku euh, début bi ku ne xamoon na basam géejawaay la. doon fa def lu ne. ku ne gisoon na géej géejawaay euh, population bi ñoo xam ne nii dañ doon jóg yëkkati seen seen ay kaddu di kañ ki nga xam ne moom moo di maali Gakou ba ci population bi nga xam ne nii mbëri bokk nañ ci musiciens yi fa nekk ak keneen keneen loolu mu daal di def recul ci li nga xam ne ni moom la doon def mhm. parce que politique nag dafa ànd xaalis mhm. politique dafa am base bi boo ko bëggee parce que population bi ak nañ leen tëggee il faut nga am as soo xam ne da nga koy wax dafa am lu leen di téye te très mhm. bien léegi nag maali Gakou ci côté am mën nga ne kat xëy na découragé am na ci ci sama euh, xam xalaat bu gàtt mais boo jëlee ku mel ni euh, euh, Abdoul Mbaye ku mel ni Déthié Fall ak keneen ak keneen est-ce que du seeni ay gafaka la ñu bëgg la ca nekk des ca moo tax utuñu base politique parce que base politique tam dafa métti. dafa métti Aliou Sow ci ni ñu koy waxee ci kaw ay poche c'est terrible dafa am poche ah, dafa am loo xam ne nii soo ko yoree sa poche il faut di nga ko génne pour nga am base politique waxuma laa nag nga nekk ci nga nekk opposant euh, boo dee dajale ay ay nit pour ñu fekk si la ci bërëb mhm. di nga leen jox kaar di nga leen jox ay flyers di nga leen jox leneen la leneen waaye itam seen transport di nga leen ko jox ak Sénégal ak na mu bindoo est que du ñoom ci seen bopp booy xëy na tam comme ni nga ko waxee buñ dee def tam pour camoufler seen bopp la ñuy nax am en tant que politicien waaye naxuñu benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di population opposition bi nga xam ne ñoom mhm. euh, euh, yi day feeñal loo xam ñu ngi egg ci euh, législative bu fekkente ne ci local a yi bu bu egsee tamit ci liste yi nga xam ne ñu ngi leen ciy fal ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ñoom ci coalition yi ñëw teg leen ci kanam pour ñu nekk député teewal askan bi jegewuñu askan bi ci local yi donc mënuñoo teew ci ci ci ndaw réew yi nga xam ne ni mhm. fa ñuy dagaanee seeni ay ba na solo Thior Alioune Sow euh, defe naa ni mën nañoo jàll ci li nga xam ne. moom moo oui c'est bien c'est terrible quand même euh, qu'on puisse dire qu'on puisse se rendre compte dans ce pays que effectivement boo amul xaalis oh, Thioro nu mu ko waxee doo dem parce que. il faut de l'argent pour continuer à assumer ses activités politiques. mais am ñu nay ci seen xaalis. oui non non xam nga aussi mais en même temps c'est terrible ça ça dire que gis nga man man changer réew mi te pour changer ko il faut ñu commencer par changer gox yi gox-goxaat te pour loolu il vous faut à mon sens ay nouvelles personnes moi ce qui me dérange véritablement moom mooy dans ce pays là dafa am ñoo xam ne ñi ngi fi depuis 30 ans 20 ans 25 ans 15 ans ci échiquier politique bi ñu ne ñoom rek ñooy continuer di wax di nekk ay maire di wax di nekk ay député di wax di contrôler di tourner entre ñoom léegi man li ma bëggoon mooy sénégalais ubbi seen xel mm-hmm. xool gis xool choisir parce que adduna tey ñuy liggéey ils ne travaillent pas mhm. liggéeyu ñu ay consultants la wala ay machin wala ñu nekk ci seen i donc man ça me gêne beaucoup je voudrais que les Sénégalais récupèrent les nouvelles personnes qui sont là dans ce pays là dëkk bi di am changement parce que mhm. ces gens qui sont là depuis vingt ans trente ans da fi war a jële indi ay xale yu bees ci gox gi parce que état d'esprit bu bees moo am euh, mentalité yu bees ñoo am doxalin yu bees ay kat ba ba di nelaw ci ci ci ci ci seen i seen bassin politique yi parce que loolu rek la ñu xam soi-disant parce que mënuñu def leneen man mënuma imaginer ce sont ces mêmes personnes là ñu ne ñoom dañuy politique ci seen gogo xaat ne ils vont pas aller mouiller le maillot pour essayer de continuer à exister politiquement et puis surtout à être représentatif te pourtant ces gens là bés élection amoon ñoom ñooy dajaloo fexe def seen kamtaay kattan ak seen ak seen sont juste ils le sont juste par des mhm. stratégies wala par les médias ils sont des hommes politiques mais loolu moo fi war a jeex il faut que ñu wane ku si nekk lan ngay peese ku si nekk lan nga xam boo gisee may tudd Ousmane Sonko man du dara loolu li mu def ci diggante ak léegi mais ñeneen ana ngeen yéen yéen fa lan ngeen nekk yéen lan mooy seen liggéey yéen yéen vous faites quoi vous vous êtes là vous parlez vous parlez quoi lan mooy seen job am na am na solo Alioune Sow mais dans ce siège rek dañuy demaat ci deuxième point bi mu mel ni ba tey euh, ci même lancé bi la nekk muy euh, priorité pour certains candidats dans les dans les médias. oui c' euh, aussi gênant que sujet bi ñu doon njëkk wax léegi parce que effectivement foofu tamit am na problème parce que on voit que y a certains hommes politiques qui sont mis en en qui sont mis en priorité dans les médias ñoom la ñuy jiital soi-disant encore une fois je reviens beaucoup moi j'aimerais bien me réveiller un jour ma gis justement benn candidat boo xam ne xaw ma fu mu jógee ca euh, euh, Kër sambakan Kane qui s'appelle un gosse qui s'appelle euh, Mbaye Ndiaye ou je sais plus comment il s'appelle Ibrahima Ndiaye koo xam ñu tegal ma ko ci benn comment dire tegal ma ko ci télévision bi invité ko mu wax mu wax lan la xalaat moom parce que c'est un simple professeur parce que il a il a de l'intelligence am na kattan am na lu muy xalaat pour réewam am na lu mu bëgg d'abord pour askanam pour son goxam Kër Samba Kane ces ñu teg leen xool leen déglu leen ñu indi leen ci télé yi indi leen ci rajo yi mettre leen en exergue ci presse yi wane leen pourquoi on montre toujours les mêmes personnes pourquoi mais il cinquante cinq cinq cent cinquante six ou cinq cent cinquante sept communes d'arrondissement dans ce pays là pourquoi doo dem dem jëli ñeneen ñi ñu wax wax li xalaat ci réew mi ñoom nag ci lañ bokk pourquoi on prend toujours les mêmes personnes Abdoulaye Dias Abdoulaye Youssa aw ñaan ñoo xam ne war nga leen a fi teg ci réew mi ñu wax seen xalaat ñoom ñoo xam ne dañu am xam-xam mën c'est juste que ils n'ont pas d'argent wala ils ne sont pas privilégiés par les médias moi ça me gêne beaucoup te man day euh, euh, euh, structure médiatique bi ma man man ñooñu laay xeexal parce que xam lu tax parce que man j'en ai marre que ce soit soit tout le temps les mêmes personnes parce que tout simplement ils ont de l'argent loolu moo fi war a jeex nañu teg ñeneen ñi Sénégal ñu ñëpp a bokk la presse les médias c'est mhm. pour tout le monde donc il faut mettre en exergue en priorité c'est en priorité pas forcément mais au moins jox leen seen chance pour Sénégal déglu leen yóbbu leen ci télé yi yóbbu leen ci rajo yi yóbbu leen ci site internet yi bu leen ci ci euh, comment dire ci ci ci presse bi écrite bi ñu ñëpp xam leen xàmmee leen ñu déglu leen au moins jox leen chance pour que ñoom ëllëg ñu mën a bu ñu leen parce que xamuñ dara bu waa sénégalais ñooy choisir mais au moins qu'on leur donne les mêmes chances qu'on a eu à donner les autres yi nga xam ne ñu ngi fiy continuer di exister toujours alors qu'ils ne servent pas à grand chose donc moi ça me gêne c'est un cri de haro que j'ai eu j'ai voulu faire par rapport à ça parce que je me dis que ni cette forme de discrimination me gêne énormément jël leen ngeen ñeneen ñi ngeen teg leen wane leen ñeneen même bu ñu amul xaalis dimbali leen ngir yàlla wul sule parce que gis nga euh, juste pour terminer parce que euh, euh, yàlla mooy defar te am na ñoo xam ne loo leen di nëbb nëbb nëbb nëbb un jour ou l'autre je suis un peu quand même mhm. ma mhm. parce que yàlla yàlla moom mooy mooy nëbb mooy mooy mooy nëbb mooy leeral am na ñoo xam ne boo leen bañee aussi tôt ou tard ñooñu vous allez finir Sonko kan moo ko xalaatoon en ñaata nit la fi jiitu ñaata homme politique ñoo fi nekk léegi nii ngi am nekk la cinquantaine di di politique depuis vingt cinq ans bi ñu nekk ay étudiants ba léegi lan lañu tekki tey ji nii ci Sénégal. c'est pour ça que loolu il faut ñu góorgóorlu ci ñun waa presse bi fexe def suñu kamtalaay kàttan ba faire montrer ceux qui sont dans ce pays là et qui sont des intellectuels am xam-xam am mën-mën mën a wax ñu jox leen possibilité sénégalais déglu leen ndax choix yi gën a mën a large. parce que choix yi warul tourner toujours autour des mêmes personnes. du ñu taxaw tuuti ci population bi nga xam ne tam ñoom ñooy recevoir ñi ne ñoom ñooy euh, politiciens yi parce que kat xëy na ci taarixu réew mi ak na mu bindoo. comme bu ñu mm-hmm. waxee xaalis politique. xaalis mm-hmm. politique ku mel ni Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee jël nga exemple quatre fois ci moom. Euh, que yoru dërëm yoru xaalis te pourtant euh, xam ne ni moom moo gis nañ ko dafa dem assumé mu ngi noonu te xëy na euh, yo joxul yorewul dara ci gafakaam loo xam ne nii tuuf na ko ci bëtu askan bi pour ñoom ñu topp ko mais su fekkente ne comme Aliou Sow ni mu ko wax dama koy euh, bi kër man da ngeen may jox ay ndombo tànk pour ma mën leen i ay bëgg-bëgg mais su fekkente ñu koy waxee da tuuf askan bi xaalis parce que ku mel ni Malick Gakou kon ni ma ko waxee nii il se peut xaalis boobu mu doon tuuf askan bi tuuf askan bi moo ko découragé tey ji ba tax tey ji mu bàyyi baasam di taxawaalu politiquement parce que taxawaal politiquement lañ ko mën a tuddee euh, est du askan bi tam ñoom ñoo leen war mën a euh, woo ci beneen voix mooy voix wu soxlaatuma xaalis la ma soxla moom mooy ma dëgg ak fulla euh, wax ma dëgg ak fulla ma jox la jox la sama baat sama maanaam samay carte nga dem toog ci ci fi nga xam ne fa nga war a toog pour mu ñëw mën a changer changer li nga xam ne moom mm-hmm. laa doon xaar est du askan bi tam war waruñu mm-hmm. apparemment monsieur monsieur Sy dafa am lu mu ci bëgg a dolli pense que plaidoyer bi mu def dafa dafa profond. parce que man je pense que déjà fi ñu jëm ni ci élection euh, gox-goxaan yi. c'est des élections de proximité on a plus besoin d'avoir maintenant des de euh, euh, des politiciens yu ñëw di di def du saupoudrage ou bien ñee ñenn ñi nekk ay militants alimentaires. Mhm. mais li mu wax noonu mais dafa am benn benn paradoxe grand man bu mu ci gis mooy que pourquoi toujours vous voyez les mais il y a des gens aujourd'hui qui ont les moyens. d'assumer le responsable ba pare ñu def une fuite de responsabilité toog seen kër moo tax ñuy gis ñuy gis toujours les mêmes donc ñoo ñuy gis tey je pense que tey nit ñi bëgg nañ changement mais changement bi day fekk nit ñi am une volonté mu am une volonté populaire affichée que nit ñi xam ne ñun la ñu bëgg ñun tey ñoo war a mun a déterminer sur la balance mooy que tey suñu wootee nit ñi ñëw mais pas rek di bàyyi benn cercle vicieux sont toujours les mêmes qui se présentent sont toujours les mêmes que tey mais xool tey cette jeunesse consciente nous avons des jeunes engagés ay jeune yu bëgg seen réew bëgg opérer des ruptures dans le cadre de la démarche léegi nag population yi ñoo war a suivre jàppale leen xam ne jeunes yiy jug ñëwuñu pour jéem leen nax mais dañoo ñëw parce que xam nañ leen gis nañ seen i xarañ parce que on a besoin d'avoir les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut parce que tamit c'est des acteurs de développement mais pas parce que yor nga sa xaalis yaa ngi def mais nit ñi du du sa xaalis lañ gëm mais gëmuñu la donc je pense que tey mais man d'accord naa li nga wax c'est juste que rek dama un truc que j'avais fait il y a vingt ans sur la stratégie d'asservissement des populations benn affaire bu ma defoon dans le cadre de mes études en sociologie politique nu ñuy asservir dafa am xam nga dafa am nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy domestiquer population maanaam nu ñu koy doxaanee doxaan quoi si je peux le dire comme ça. Mhm. Euh, nu ñu koy nu ñu koy nu koy wax pour mu pour mu pour mu pour mu pour mu pour mu daanu mais dafa am aussi nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy asservir population fexe ba euh, xelam du sori. Euh, maanaam dinañ def ba en sorte que ni moom moom dafay limiter rek ci gis ki quoi par rapport ak li ñu koy tegal li ñu koy tegal quoi li ñu koy offrir mm-hmm. yaataluñ ko quoi dañ ko limiter ba nga xam ne ci foofu rek lay gisee mm-hmm. euh, te loolu dañ ko war a changer moo tax may def li may def nii parce que finalement boo gisee lii nii dama gis ne affaire boobu mi ngi continuer ba tey mm-hmm. et que les gens euh, am na ñoo xam ne mën nañu waaye kenn du leen wane est xam lu Euh, système bi moo décidé ni ñooñu kenn waru leen wane on regarde xool élection présidentielle tey xoolal journaux yi tey journaux yi rek tey laa lay wax ni mhm. tey entre ñan la Pape Diop Barthélémy Diaz Soham Wardini Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que vous pensez que ni amul keneen koo xam ne tey jii bëgg na nekk maire maire Dakar wala maire Parcelles Assainies j'entends un garçon qui s'appelle Go Go Faye comme ça qui me vient à l'esprit euh, au Parcelles Assainies un garçon extrêmement Mhm. ku am xel mais kooku man pour man wane wuñ ko waroon nañ ko mën joxe xalaatam ci télévision yi et cetera ci béréb yu baree bari yoo xam ne mënoon naa fi joxe ay exemple yu bari yoo xam ne ñoo xam ne kenn du leen wane parce que xamul tax bëgg ñu leen wane parce que bu ñu leen wane dañuy gêner les autres parce que les autres ñoom ñoo téye système bi te ñoom ñooy alterner entre eux mhm. et c'est ça qui n'est pas bien loolu nag dafay découler dans la stratégie sa sa sa sa sa tënk la ni ñu lay defee nga xam ne yow droite ngay gersu doo gersu gauche et c'est ça qui n'est pas normal alors que mbir mi dañ ko war a balayer ndax population bi di mën a gersu fu nekk te loolu médias yi am nañ ci solo trop te loolu duñ ko liggéey xool xool xool xoolal ci télévision yi et je vais vous dire ah monsieur Madani si xoolal ci ci bi nii euh, ci élection yi ak campagne électorale les prochaines qui vont venir xoolal ñi ñuy teg ci télévision ñi ñuy invité. Mm-hmm. xoolal ci télévision yi rek ngeen xool ma rek sénégalais yi. on évite toujours les mêmes personnes ñun ñëpp la wax na. Mm-hmm. on évite toujours les mêmes personnes dañu gis même nit boo xam ne ñett yoon lañ koy invité ci benn structure de télé euh, de télévision wala radiophonique wala moom la ñuy ci journaux yi wala yi parce que diw mii di jaay ni am na un jour mu commencé benn yoon ba ñu gëm ni léegi day jaay mais pourquoi on ne prendrait pas les autres pourquoi on prend toujours les mêmes personnes ci télé yi ci rajo yi ñoom la ñuy mais am na ñoo xam ne am nañu xam-xam. mooy absence de démocratie à mais mooy mooy est-ce que véritablement maintenant c'est une question finalement qui peut être posée en conclusion je, je l'aurais écrit mais est-ce que on est dans une euh, démocratie censitaire finalement est-ce a nekk doo am kattanu politique parce que kenn du la faale parce parce que parce que joxuñu la possibilité pour nga wax parce que ñi la ko jot a wax ñoom boo leen ne éviter diw moi je connais déjà y a quelqu'un un monsieur qui s'appelle parce que Sénégal il faut ñu xam ndax c'est combat aussi un monsieur qui s'appelle Mortal Mortal euh, ci kanam la bokk ak yooyu je mhm. xam nga c'est un que j'ai écouté mais ce monsieur kooku tey nii bu bu buñ ko déglu woon ci réew mi nii nii nii ñu jox ko ñaari yoon possibilité pour mu wax mu génneel ay secret yoo xam ne man dama ko xam avec des preuves à l'appui j'ai halluciné te man loolu damay bëgg sénégalais di ko xam pourquoi ñu leen di nëbb ñooñu man j'ai ma télévision je l'amène ce monsieur là mu wax sénégalais xam li ñu xamul woon. Uh-huh. parce que ñooñu dañ leen di tëj dañ leen duñ leen woo parce que on évite toujours encore une fois comme dafa war a jeex ci réew mi te exemple yi ma di wax nii nee naa leen exemple yi mun naa leen si jox cinquante ans cinquante fii ba mi mais Aliou Sow tey nii pour euh, gérer li nga xam ne moom moo di

dëgg rek la ñu war a wax te moom rek la ñu war a laaj. omelette mënul ànd ak xott yi de. waaw waaw xott xott xott nag la il faut nga toj ko. mais mais nii foo uh-huh. la mooy sang. yow ñii ñii suñu mais la mooy la mooy sang. xam nga man xam nga lu man sax population bi commencé nañ yeewu ci loolu. c'est ça maanaam boo ñëwee da teg. plan yoo xamante ne nga teg say motivation ñu xool xam ni kii lu muy wax dina jëm kanam kii lu muy wax a ah, xel nangu na ko population bi am na si ñoo xamante ne léegi gëmatuñu ay xaalis dox leen xaalis ak lii ak lii mhm. sa plan d'action ngay teg mais Aliou lu mu wax c'est à dénoncer aussi parce que boo boo seetee sax lii ne ñi ne di waa correct aussi jot nañ ko dénoncer parce que dafa nekk ouverture campagne bi am na lu fi jot a am mhm. maanaam ay journaux yi nga xamante ne ay euh, journaux de la place yi nga xamante ne dañu jël benn personnalité daal di ko teg euh, def ko sax def ko àlla une mhm. mu nekk loo xam ne dañ koy dénoncer te am na ay jeunes yi xamante ne ñu ngi fi pétri de talent am seen ambition ci seen gox mais am occasion ñëw toog wane loo xamante ne ñoom loolu lañ bëgg parce que médias yi comme ni ñu koy waxee ñoom dañ fay nekk tamit pour ñi nga xamante pour ñëpp lañ fi nekkal mais duñ leen may occasion boobu noonu mais mais c'est ça duñ leen may occasion boobu noonu ñu wane seen kii gis nga gis nga gis nga gis nga pour éviter nit ki sax éviter ma tout un tas de problème tey les gens la lañ bu soxla tey ñoom ay programme mm-hmm. ñu xam ne candidat yi am nañ ay programme mais da ngay da ngay sentir ni am na ci ñoo xam ne amuñu programme dañoo pas concevoir par exemple yow da ngay dem campagne di saaga ay nit di xas ay nit. loolu population ont besoin population dañu bëgg li ñu soxla mooy que ñu apporter ay rupture ñu gis ni que tey fii ñu jëm tey. Mm-hmm. del set mbetteel mbetteel dina am ci élection yi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que pourquoi parce que tey avec la cherté de la vie ak fi Sénégal toll tey. ak fi nit ñi tey di gisee mooy que tey il voit aujourd'hui autrement on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir euh, di dund ci ay slogan solal nit ñi ay yére tamay topp la ñuy wundeelu moi je dis encore une fois te loolu mooy occasionné violence bi ngay gis tey mm-hmm. pollution sonore man je dis yow oh, man tey man tey man tey góor suma sago ñu def que tey au moins dinañ éradiquer la violence mais nii muy demee nii ay jàmmarloo lay andi de telle sorte que tey benn fissure bu doy waar lay andi mm-hmm. man j'en appelle vraiment au sens de mm-hmm. ñu xam ni plaidoyer bi nga xam ne Aliou Sow mi ngi koy def. pour que nit ñi jël seeni responsabilités devant leurs obligations. Mhm. pour que ñu xam ne ni bi ñun Sénégal ñun ñoo ko moom. Mhm. am na solo foo ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom ba lépp lu ñuy def rek mu nekk lépp loo xam ne dina arranger askan wi yëpp ma bàyyi la nga tàggatoo mbokku téléspectateurs yi. oui c'était juste pour pour pour dire que euh, euh que que euh, euh, dëkk bi dëkk bi wax nga dëgg ñun ñoo ko bokk mais mais mais dëkk bi aussi dafa am ñoo xam ne dañu ne ñoom bokk ñu ko dañ ne ñoom ñoo ko moom ñoom kese te lu leen neex la ñuy def et je crois que loolu loolu loolu daf fi war a jeex pour loolu il faut que euh, xam ne ñoom ñooy yor ñooy yor médias yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jox information yi askan bi il faut que ñoom ñu participer ci à 100 uh-huh. pour cent du leen tere def seen liggéey normalement mais ñu euh, man vraiment j'en appelle à un certain niveau de responsabilité qui ferait que justement ils penseraient pas à tout temps inviter les mêmes personnes man loolu vraiment boo metti ma torop et je si j'ai bien c'est ah. mieux <laughs> parce que ça me permet de revenir encore demain inchallah mhm. parce que li moom encouragé quand on me dit que j'ai bien travaillé mais quand on me dit que j'ai mal travaillé il faut que j'aille réfléchir pour xam lan moo tax liggéeyu ma comme j'ai bien mhm. travaillé demain je vais revenir encore ici ci kàttanu yàlla euh, pour essayer de euh, continuer encore à refaire le même bon boulot si c'est possible je dis Euh, monsieur si vous savez. maanaam euh, euh, moi je le vois depuis longtemps maa ngi koy gis mu ngi mu ngi rayante jóge technicien suba toll ba mhm. fi mu toll ni tey ji mhm. un pays qui voudrait euh, vraiment avancer euh, dëkk boobu du du jël UCG mu koy jox keneen ku dul mhm. un homme qui a plus de ah vingt ans d'expérience xam nga xam nga xam nga liggéey dafa war di wóor xam nga les bons réflexes euh, du générosité kese mais pour l'intérêt du pays am na ñoo xam ne bu ñu amee xam-xam ci benn béréb yàgg depuis vingt ans yow waroon nekk inspecteur machin yow de parce que je suis gentil parce que mhm, euh, je préfère je préfère je préfère le pays euh, que que que monsieur Madani. Mhm, mhm. am na Mm-hmm. en tout cas ça fait plaisir. voilà di leen sant di leen gërëm et puis naturellement euh, euh, euh bon évidemment maman ma mère Henriette qui est, qui est à Alfortville euh, maa ngi lay bàyyi xel maman yow ak euh, ah, Khady Seck bi nekk Lac Rose je vous aime beaucoup et puis la maman Khady Ba aussi qui est à Diamniadio moom mooy yaayu Soukeyna Sarr maa ngi leen di sant di leen gërëm. ma ne nuyu naa la maman Henriette tata Damas Adama Ndaw gis nga Adama Adama yàlla nga fi yàgg te wér mais mm-hmm. j'ai toujours quelque chose qui me qui me gêne Adama. Adama ñun dañu war a dañu war a gis sa kanam. Mm-hmm. on voit une ombre extrêmement tellement généreuse euh, qu'on a envie justement un jour loxo waxtaan ak moom euh, continuer di la sant di la gëm yow ak sa jëkkër Cheikh Seck yàlla na leen yàlla sàmm indi na lu un grand coucou à Cheikh Tidiane Gomis qui est de l'autre côté euh. mais c'est un homme aussi qui ne tient jamais à sa parole <laughs> d'accord comme ni nga ko waxee moom Alioune Sow am na solo torop mu doon waxtaan ak lépp loo xam ne dem na soxal nañu ci wàllum actualité au passage damay def un big up di ko.